jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare ki leen di nuyu te di leen siyaare mooy seen mbokkum taalibe Serigne Mourtala Gueye géwélu Xaadim Rasoul ma del si ak yéen ci seen beneen émission gëstub mag ñu baax ñi ñu ànd kook mag mu baax tey nag mbokk yi nu ñëw ci dëkk bu tedd bu kawe fekk si fi jàmbaar ju tedd ju kawe Euh, xeeñtu si ab liggéeyam ci yoon wii di yoonu Serigne Touba Khadim Rasoul kooku mooy kan maam Saliou Fall rakki maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine ñu bokk ñoom ñaar wenn waajur wu góor ak wenn waajur wu jigéen te sëriñ Moussa waxoon ca woy wu rëy wa woyoon seen maam ju baax ja Aboo Dërdaay Abu Darda yi moomu nag mbokk yi xam ngeen ni sëriñ Touba xaadimal Moustapha Abu Darda yi mooy maamam te daana ñaan cib liggéeyam naan yow yàlla sunu borom yàlla na nga ma nangul sama mbiri biir ak yu biti ci barkeb aboo Darda yi sama maam Abu Darda yi moomu nag mbokk yi mooy maami sëriñ Touba waaye mooy maami Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine te Cheikh Ibrahima Fall làmp ak maam Saliou Fall mi ngi xeeñtu ci tey noo bokk wenn waajur wu góor ak wenn waajur wu jigéen Abou Darda yi moomu nag mbokk yi da nga naan Abou Darda yi Lamtooro Jaate Fatimata Jaate Ahmadu faatimata suraaxel mooy buur mellentaan gaañu suraaxel amari gaaji Biraama Siise buur mbañ Fatin Masamba Siise sëñ xube Maamun Jabata soxna xujja Siise ñu jox ko Amaat Ali Bousso mu am ci Ahmadu soxna Bousso ñu jox ko Mamaara Mbakke mu am ci ahmadu soxna buso ak sayer mu soxna buso ahmadu soxna buso moo jur soxna astawaalu buso mu jur soxna jaara buso mu jur sunu yaakaar tey ak ëllëg Cheikh Ahmad Bamba xaadimal Moustapha mi nga xam ne moo waral lii lépp waaye bokk gi mu bokk ak Cheikh Ibra da ngay delluwaat ne Aboo Dërdaay moo jur Njaajaan Njaay ne Bamba Buri Njéeme Demba Njare Samba Sadio Bakkar Waqi Manjaay Fatim Sayar Maram Roqee Njaay ñu jox ko Amar Faal Saar Njaay moom ma dammel ndesit faal mu am ci Muhammadu Roqee Faal ñu jox ko maam bu Njaay mu am ca maam Cheikh Ibrahima Faal ak maam Saaliwu Faal mi nga xam ne moo waral sunu jotaay bii tey mbokk yi maam Saaliwu Faal nag sanc ay dëkk yu baree bari waaye bi ci gën a siiw mooy bii nga xamante ne bii ci la waxoon ne dëkkuwaay la du bay euh, mbay taxu koo jóg euh, sañ ci dem taxu koo jóg waaye fi laay toog wéetal yàlla liggéeyal fi sama sang bu baax ba Cheikh Ibrahima Fall Lamp waaye liggéeyal fi Serigne Touba mi nga xam ne moom lañ bokkoon yaakaar ñoom ñëpp euh, Serigne Touba nag boole woon ko ak Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ bi nga xamee ne yeesal nag njébbalam waaye mu def fab diir sëriñ Touba wëlbatiku nag del joxaat ko magam ju baax ji di Cheikh Ibrahima Fall Lamp euh, mu nekk ak moom euh, dem na Ndar fekk fa Cheikh Ibra dem na Gànjool dem na Ndeye Fall euh, euh, dem na euh, dem na Tasineer dem na Jaara loolu yë doo dëkk yooyu yëpp mu sancoon ko ci ndëgalal Cheikh Ibrahima Fall Lamp maam Saliou daal ci gàttal jëloon léppam jébbal ko Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine mbokk yi kon kooku lañu ñu si tey dëkk bii di ñëw it sëriñ bi mi ngi ko sanc moom maam Saliou 1922 la sanc fii di Daarul Xafour kon mbokk yi. moom ci jëmmi boppam nag maam Saliou bi mu fi ñëw àndoon na ak ay mag yoo xamante ne bii ñoom la àndaloon ca yooyee jamono ñuy ay taalibeem mu ànd ak ñoom eh, di liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall Lamp magam ca mën nañ cee jukki ñenn rek ku mel ne sëriñ Mbayloo sëriñ kan sëriñ Codé Fall ak mag ñu baree bare bari bari bari ñoo xamante ne bii eh, eh, dinañ ci ñëw ci kanam tuuti ñoo xam ne àndoon nañu ak moom waaye mu mel ne 1922 euh, la sanc dëkk bi mbokk yi kon loolu muy lu leer a leer euh, waaye moom maam saaliw mi ngi gane àddina 1859 ñii ne 1858 ñii ne 1859 waaye lu ci mën a am rek euh, moom mooy tafop maam Cheikh Ibrahima Fall ah waaye mi ngi feeñ jamono ci juddub Seydina Isa kon daal. jàmbaar jooju la ñuy xencu si tey mbokk yi war ko ànd nag ak ki nga xamante ni mooy doomam ju baax ji di sëriñ daam saaliw mi nga xam ne moo tooge ab jotaayam te mat ko sëkk waaye war ko ànd nag ak sëriñ Bada Fall mi nga xam ne mooy doomi eh, eh, sëriñ daam saaliw Fall mi nga xam ne moo tooge jotaay yëpp eh, maam saaliw te mat sëkk li mu doon sëriñ Bada dinañu ci defal waxtaan wu ama am am solo kon daal mbokk yi dama leen di jox dig daje ci kanam tuuti ma ànd ak sëriñ Gora wan leen jeexital yi nga xamante ne bi nekk na fi waaye ànd ko nag ak waxtaan wi Serigne Bada Fall kon maa ngi leen di jox digg daje ci kanam tuuti jërë ngeen jëf. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayduna wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman jërëjëfe tuba mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di chaarewut bu baax a baax a baax ni leen ko waxe woon léegi wax leen ne noo ngi fii ci daarul xafuur xencu si kenn ci njabootuk sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul doonoon koo xamante ne bi lu ko baax lëggéeyal sëriñ Tuubaa ba làq ngërëm rek boroom dëkk bi lëggéeyal na ko sëriñ bi ba làq ngërëmam kooku nag mooy maam Saliou Fall di rakk ci sunu jàmbaar ju tedd ji Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine xam ngeen ni nag bi nu ñëwee fii ci daarul xafoor fekk nañ fi sëtëm bu baax bi di sëriñ Bada Fall fas ànd ak moom waxtaan wi nga xamante ne bi fas yéene nañ koo def ci maamam ju baax jooju ci seen émission bi di gëstu mag ñu baax ñi waaye mu ànd ko nag ak waajuram wu tedd wi nga xamante ne bi moo toogee jotaay bi nuy ñaan saa yàggal ko fi lool te wéral ko muy sëriñ Dame Saliou kon xam naa mbokk yi eh, dañuy jox sëriñ bi su ko defee mu daal di dugg ci liggéey bi waaye e, leeral ñi nga xamante ne bii ñoom la bokkal sëriñ bi te nu bokk ak ñun jotaay bi su ko defee bu defee nuyoom nag ñu doog a jublu ci waxtaan wi masbillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman bi barakati cheikhina cheikh Mat Bamba barkeb maam cheikh Ibrahima Fall barkeb maam Saliou Fall ah, mbokki jullit yi cheikh Mourtada ñoo ngi leen di jottali ab nuyoo bu gën a kawe di leen xamal ni tam am nañu mbégte ci seen teewaay bi ngeen teew fii ci Daaru Xafaru Rahim di ëttub maam Saliou Fall ni nga ko waxee léegi ah, yooyu kàddu yépp nag ñu koy jooxe ci kàdduk sëriñ daam saaliwu Fall mi nga xam ni mooy jëwriñu sëriñ Saliou Fall tey ci kaw suuf di ñaan sunu borom guddalu fanam te may ko wérug yaram di jëkkati tam am nuyoo akub ziyaar jële ko ci sëriñ bi eh, di ko jéeme ci Cheikh Sidil Muxtaar mi nga xam ni mooy ab sëriñam mooy léppam nga xam ne moo fi toogee jotaayub Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Moustapha eh, di rafetlu lool lool lool lool seen teewaay fii Euh, di la xamal tam ni jotaay bi ñi ngi fi toog ak suñu kilifa Serigne Saliou Fall di suñu mag mu feggu nii ci suñu càmmoñ ak Cheikh Abdou Chakour mii nga xam ni suñu rakk la ak euh, sëñ Ndonga ñing mii nga xam ni moom it euh, ci kër gi la bokk di taalibe ci kër gi di fi lépp ak seex Moustapha Fall suñu rakk moom it xam naa mi ngi ñëw ci kanam léegi ginnaaw bu ñu yaatalee ziar bi daal ak teg nuyoo yooyu nga xam ni ñi ngi ko jëlee ci ku tedd ki sëñ Dame saaliw di ko jëmale ci Cheikh Mouhamadul Mamoun ak magam ju baax jooju di xalifa eh, yoonu murit wépp muy Cheikh Sidil Muxtaar loolu daal mooy li nga xam ne dañ ne woon nañ ko ziare rek teg ko ci seeni loxo. Sëriñ Bada yow itam noo ngi lay ziare bu baax ci turu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñooy bàyyi xel seen émission gëstu mag ñu baax ñi di ziare bu baax sunu sang boobu Sëriñ Dame Saliou di ko ñaanal gudd fan gu sax dàkk ci barkeb Maam Saliou Fall. mu mel ni sëriñ Bada euh, dañuy daal di jublu ci liggéey bi ndax ko ne daarul xafoor ni maam Saliou mu sanc ko di fi liggéeyal yàlla di fi liggéeyal yonent bi di fi liggéeyal sëriñ tubaa waaye di fi liggéeyal magam ju baax ja Cheikh Ibrahima Fall làmp liggéey ba yaatu lool euh, xam naa dinañ ci ñëw ci kanam waaye euh, sëñ Bada li ñu bëggoon a xam rek mooy ndax sëriñ bi daaru xafoor la njëkk a sanc cib dëkk wala daaru xafoor ndigal li nga xamante ni bi daal moo indi sëriñ bi daaru xafoor ak li tax mu sanc ko Cheikh Mourtada jërëjëf euh, dafa mel ni loolu euh, sëriñ Saliou daaru xafoor mooy dëkk bi nga xam ne sax dañuy wax ne moom la mujjee sanc ci ndigalul sëriñ Touba ndax fi mu jaar ci ay barab yu mu sañc bari na lool ba egsi ci Daaru Xafoor gi nga xam ne fi la ab liggéeyam mate euh, am na dëkkam bu ñuy wax kër ngalgu kër ngalgu mooy sancam bi njëkk fa la njëkk a sance fa njëkk a yore tam ak njaboot waaye ma nga fa jugewaat dem ndar bi nga xamee ni maam Cheikh Ibrahima Fall mi ngi ndar te Serigne Touba juge fa dem ci liggéey bi Cheikh Ibra yàgg fa mel ni koo xam ne dafa jaxasoo woon nekk ci diggante Ndar ak Tasineer ak Gànjul maam Saliou bi mu nekkee ci euh, kër ngal gu ginnaaw bi la mënatut muñ diir bi mu ñàkk a giseek magam ju tedd jooju di maam Cheikh Ibrahima Fall mu dem fekki ko Ndar bi mu ko fekkee Ndar wax nañ ni fa la ñu bokk nekk nekk nañ fa ab diir ànd fa jóge fa ñëw ndànd faal sanc fa maam Cheikh Ibrahima sanc fa këram maam Saliou sanc fa ñu nekk ndànd nekk fa nekk fa ab diir maam Saliou bàyyi ko fa ñëw sanc piir bi mu sancee piir ah nekk fa luy toll ci ñaari at ci la fa Cheikh jugewaat ndànd ñëw moom Thiès bi mu ñëwee Thiès maam Saliou juge Thiès juge piir ñu bokk nekk Thiès fa la maam Cheikh Ibra sance daara ji ñuy wax Ndey Fall bi mu sancee Ndey nag moom ci Thiès la waaye moom féetiwut ca daara ja dafa nekk ci dëkku Thiès am daaray ndey maam Saliou moom sanc moom it ndey ba pare féete moom ca daara jam fa sanc ñu nekk fa nekk fa ba mu mel ni seen seen sang bu baax ba Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba daf leen di xeeñ ak ñibbi seem ci ndakaaru dellu seem ci lañ fa jóge dem ndakaaru maam Cheikh la nekk Lambinance maam Saliou nekk Parc France foofu la ñu nekk ba ni nga xamee ne ni la ko tedd ki Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Mustafaa suñu yaakaar tey ëllëg ñibbisi bi mu ñibbisee ñu nekk foofu ba ni mu fa jóge tubaab bi jëlaat ko yóbbu ko gànnaar ci lañ fa jóge dellu siwaat Thiès muy ñaareelu sancub Thiès bi ñu nekkee Thiès nag yàgg nañu Thiès lool ba ni sëriñ Touba dellu siwaatee njaarim bi mu nekkee njaarim ci la ñu ñëw fekk ko njaarim sëriñ Cheikh Ibra Fall nekk ci Mirina maam Saliou Fall sanc fa ñuy wax Makka Loy Loy mooy fee nga xam ne tey fa la këru maam euh, Cheikh Ibra Fall ga nekk ñu koy woowee kër Cheikh te sëñ Cheikh Ndigal Fall moom kër ga kër googu kërug maam Saawi la woon moo ko sañcoon maam Cheikh sanc ci Mirina mooy foofu ñu def jàkke jooju nga xam ne jumaa Cheikh kan ji waaye mu mel ni nag suñu borom ci ab dogalam dafa dogaloon benn feebar bu ñuy wax peste am fa boo xam ne bari na lool ci njabootu gi ñoo xam ne dañ cee wàññi ko ci la Serigne Saliou nag ñëwaate ci Cheikh Ibra fekk ko foofu ci ndigalu Sëñ Tuubaa toxalewaat foofu magam ju baax ja maam Cheikh Ibra yóbbu ko ca fee ñuy woowee kër Cheikh ba mu ñëwee mu jël kër a nga xam ne këru boppam la woon joxaat ko Cheikh Ibra Fall addiya maam Cheikh Ibra nekk ci kër googu maam Saliou sancaat ci wet gi loolu fa la ñu nekk fa la ñu nekk ba ni ñu fa jógee maam Saliou ñëw sanc Daaru Xafoor ci 1922 waaw kon Daaru Xafoor mën nañoo wax ni mooy sancam bi mujj ndax fi la nekk ba ni mu fekkee fekkee ku baax ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Moustapha yaakaar naa ni mbokk yi leeral boobu am na solo lool ci jëmm ju tedd ju kawe jooju ci jaar-jaaram waaye nga wax lu am solo ci toog bi mu toog ab diir gisut magam ju baax ji Cheikh Ibrahima Fall mu toppi tànkam di ko xeeñtu ba loolu yi moo sabab ci ni nga ko waxee mu dem ndar ak jaara ak tasineer ak fu mel ne dëkk yooye yëpp nga wax ne nga wax léegi te te wax ne maam Saliou jaar na fa waaye mu mel ni eh, daaru xafuur gën naa siiw ci dëkk yi nga xam ni moom la maam Saliou sanc waaye itam ñu jàngate ci nangoo ci ci lu ñu gëstu wax ni mooy dëkk bi nga xamante ne bii maam Saliou bi mu fi nekk dafay nekkoon doktooru baatin daan faj ci wàllu wàllu wàllu baatin waaye loole am ñu ne sangam bu baax ba sëriñ Touba Xaadim Rasoul moo ko ci joxoon ndigal euh, jaare ko ci buntam maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine waaye daal lu ci mënti am féete woon na fii ci daarul xafoor daan dimbali nit ñi ci baatin ana loolu lan nga ciy leeral mbokk yi nga xamante ni bii ñoo lay seetaan. waa kay jërëjëf Cheikh Mourtada loolu tamit ay leeral lañ ci biir yoo xam ne yu ama am solo la ndax maam Saliou ah, digganteem ak xettali jaam ñi nga xam ni dañ daan am ay jafe-jafe ci wàllu xel ci wàllu yaram loolu moom kenn ku ne ku xam dara ci yoonu murit xam nga ne loolu bokk na ci li nga xam ne taxaw woon na ko njabootu Serigne tubaa gi te mooy taalibe yi ah, loolu tam amut lenn loo xam ne Serigne Saliou lu mu daan yëngutu la di ko def te doonul lu dul ne ngër ndigalu Serigne Touba moom la ci am waaw am na nag ñu wax ne bi nga xamee ni ku tedd ki mi ngi koy gërëm da koo xamal ne ko mankat Mbakke lépp loo xam ne cër la buy nuuru dara ci àdduna joxal ma ko sama mag ju baax jii di di di Cheikh su ko defee nag lépp loo xam ne man sama mbira nga dencal ma ko ba ëllëg yow mal xi am am na ñu nettali ne ci loolu bi mu génnee amaadaat yi ku lu mu ci romb muy garab yi dañuy wax ak moom ne ko Serigne Saliou de sama xob yi lii lay faj sëriñ Saliou de sama reen yi lii lay faj Serigne Saliou sama xas mi lii lay faj nee ñu di ko def di ko def ba mu jekki-jekki wàññi ko dellu ci ku tedd gi Cheikh Mat Bamba ne ko kat Mbakke dama ne woon lu di cër ci àdduna nga joxal ma ko sama mag ju baax ji Cheikh Ibra Fall nee ñu Serigne Touba xamal ko ni ko noonu nga ko bëggee ni lañ la ko defale waaye nag loo gis ci àdduna yow xamal ne sa ndab la cay lay tuuru ca ndab la di rogalaat mooy li nga gis fii waaye sa ndab dee su ko ubbi ci àdduna waaw kon euh, loolu lépp ay tawféex la yoo xam ne Serigne Touba moo ko defoon jëlee nañ ci ku ñuy wax Baye Naar Fall mi ngi fii sax ci dëkk bi xaj na dafa génn moo tax jotaay bi mu teewu ko mu wax ne te moom kenn la ci ñi nga xam ne jege woon nañ ak sëriñ bi ndax dégg naa ko mu wax ni ci sëriñ saa Saliou de la sa déggee koo xam ne li mu wax kenn mësu koo wax ñu ne ko lu mu doon mu ne moom da dégg mu ne mu wax ne wax ñaata fan li ma li ko dese ci ab dundam ci àdduna sëñ saa toog ne fii ci Béntani gi wax ko ci benc bi te nee na boobu sëñ Modou Anta doomam ju baax ja ñu ngi siyaare ak njabootam ñëpp moom moo xëy dem ci baayam sëñ Saliou baayam woon waaye xaritama woon wax nañu ne mbooleem ku sant Fall ku sëñ Modou Anta ëpp toonub xam-xam cim njàng amut moom ci baayam la nekkoon mu ngi jàngi fii ci njaareem wax nañ ci franco arabe boobu waaye français lépp da ko da ko da ko maîtriser woon doomi sëñ Tuubaa itam amoon nañu moom wëllëre woo xam ne daawuñ jug fi moom ngir xam-xam bu bari am na ku ma wax ne ma sëñ Sooy bu Mbàkke néew na lu mu daan wax te du ko tudd waaw sëñ Modou Anta moo mën a xëy siyaare si baayam sëriñ saaliw nee na bi mu siyaaree bay dem sëñ Saliou wax ko ne ko am na ci góor yàlla yi de koo xam ne juróom-ñaari weer moo ko fi dese nee na mu ñëw nettali ko Baye Seex ñaan mu ne ko sa baay de tàggu na la Baye Naar nee na moom mu toogaat ñu toog fii ci pénc bi sëñ Saliou toog gétt gi nga xam ni moom Baye Naar magam ñu koy wax Baye ngoone Ngone moo daan sàmmal maam Saliou nag bi moo ko yoroon nee na maanaam nag wu ci aw yëkk wu ci ne woon wu ñuy woowee saadaaru nee na bi mu rombee Sëñ Saliou fi ñu toog mu nàññi bëmm bëmmaat nee na nag yëkk woo dafa amoon xorom am bayre mel ni nit nee na Sëñ Saliou ne ko xam naa ko xam naa ko de ba mu dem mu ne leen xam ngeen lu saadaaru wax ñu ne ko addee ah, de defaal loolu de xanaa waxi xam mu leen moom de daf may xamal ni juróom-ñaari weer moo ma dese ci kaw suuf loolu de fekkoon na ma xam ko Baye Naar nee na loolu njëlbeenu koor la kori diggi tëbaski tamxarit màggal gàmmu ca ñetti fan yi gàmm wàccu liggéey waaw nga xam ni kon mu dëppoo ak na nga xam ne ni la ko waxee woon te Baye Naar moom ci fukki nit ak juróom-benn ñi yanoo maam Saliou fii doon ko yóbbu Touba ci la bokk ñu jaarale ko sëñ Dame Abdourahmane Lo jële ko fa jàllale ko ca euh, fee ca barab yee nga xam ni fañ ko denc diggam ak magam Cheikh Ibra Fall ci fukki mètre lay toll keroog nee na biñ koy denc ay kéemaan sax am na ca yoo xam ni kenn mënu ko wax ndax bokk na ca nee na barab bi bi ñu koy waajal ba mu toll ci war a doy dañuy def peel buñ dóor buñ ko tibbee muy xaalis ba dañoo mujj sax nee ñu sëñ yaaram bay neen lii suñ ko toppee danañu fi gis loo xam ne danañu jaaxal ma laaj ko loolu ne ko dama ko dégg mu leerale ma ko nii ne ma xaalis boobu ñun ñi ca la ñu jëndal caaf la ñu reere jënd nañ ca loj ko lañ joo xam tam def nañ ko ca barab bàyyi naar moom mi ngi fii ci dëkk bi dafa génn moo tax teewul jotaay bi kon Serigne Saliou li nga wax euh, noonu ci faj gi mu daan faj loolu tam am na ay firnde yu wér ne ndax bay daam Gueye kenn la ci jëwrinam yi nga xam ni àggoon na ci wóolu ko wóolu ba jëloon na doomam ji ñuy wax soxna jeefaal dénk ko ko soxna jee moom mag la ci sëriñ bi moom moo fi des ci doomi sëriñ Saliou ñu ngi leen di siyaare ndax ñoom sax la waroon a jiital ci wax ji mooy suñu bàjjan soxna jee ak suñu bàjjan soxna jëgg nga xam ne ñoom ñooy leeri sëriñ Saliou Fall yi fi des ci jigéen ak seen càmmiñ lii nga xam ne mooy sëñ Dame Abdourahmane ñu koy wax sëñ daam Saliou te sëriñ Saliou Fall tudde ko sëñ daam Abdourahman Lo waaw foofa xaj na dinañ ci yegsi ci diggante bu mu amoon ak sëñ daam Abdourahman Lo ba yooyu yëpp am ci euh, waaye sëñ daam ngay moom wax na ni dafa am benn bis maam Saliou di ko am lu mu koy binduloo nee na bi mu ko bindee ba ñëw mu ne ko mu sant ko ci gërëm ko ne ko man day jàng alxuraan mënatuma ko ne ko ndax de bu may ubbee téere bi rek aay dañuy wax ak man aaye bu ci ne danaa ma man de boo ma booleeg nangam ma faj nangam ba ma boolee xob sàngam ma faj nangam nee na day mujj loolu day day day bari ba diis gann ba daanaka sax day mujj ubaat téere bi nee na it wax na ko ni ko àll bi mënatuma ci wéet ndax àll bi de su ma ciy dox bu ma àndee menn man képp garab yi dañu may dogaale kenn ku ne di ma wax la nga xam ne moom lay faj man de Serigne Saliou boo ma defee nangam ma faj nangam nee na ba moom mujj na dugg ci àll bi te àndut ak nit sax su ko defee noonu ñu koy dogale ak ni ñuy wax ak moom day mujj da ko da ko da ko da ko da koy gis nee na Baye Dame moo wax moo ko wax lii ne ko Serigne Saliou de moo waxal lii boppam waaw kon suñu borom defaloon na ko tawféex joo xam ni ndax wax nañ ne ku tedd gi Serigne Touba sax docteur bu la ko daan woowe waaw na yu ci xew yoo xam ne ndax ñi ngi wax ne Serigne Saliou Mbacke mii nga xam ni mooy sunu yaakaar te ak ëllëg liggéey liggéeyam bu rëy bii nga xam ni kenn ku ne xam na ni féete na baayam bu tedd ba ci yoonu murit wi foo xam ni kenn mës a gis lu mel noonu ci liggéey bu rafet ci liggéey bu mat bu jot ñu ngi ciy profité nag di siyaare moom njabootam gu tedd gi mu fi bàyyi muy Serigne Cheikh Saliou ak i rakkam ak magam soxna waalo ñoom ñëpp ñoo ngi leen di siyaare ah Serigne Saliou moomu wax nañ ni waajuram soxna Fat Jaxate sëriñ tubaa yabal na ko fii te sëriñ tubaa ku ne xam na ne lu ne lu mu mën a doon ak fa mu ne moom moo ko fa def waaye nag yebal na ko fii ci Serigne Saliou mu ñëw fii ci Daaru Xafoor ngir yoo xam ni lu mu ko doon fàggul la yooyu nag ya ci am na ci yoo xam ni du ñu mën a nekk di ko wax ci ay rajo ak ak i télévision ndax mbiri biir la waaye li leerte te wóor daal mooy Serigne Saliou moom noonu nga ko waxee euh, faj gu mu daan faj di dimbali nit ñi teqali ko seen sago ak wére di yaram loolu moom lu leer la lu wóor a wóor la loo xam ni lu ci nekk mën nañ cee joxe ay firnde yoo xam ne yu wér kéng la relation boobu noonu ak foofu mu jaare ba ni mu tàbb seewaat ci loxoy magam ju baax ja euh, Cheikh Ibrahima Fall ana loo ciy leeral. Euh, ni ñu ko waxee rek xam nga bi nga Serigne Serigne Serigne Saliou moom mi ngi feeñ jamono ci 1859 1859 Cheikh Ibrahima Fall magam mi ngi ko magee ñetti at. ni nga xam ne tam wax nañu noonu la Serigne Touba tam njëkk a feeñe euh, ci Zahir Cheikh Ibrahima Fall ñetti at. waaye bi nga xamee ni yàlla dogal na mu feeñ jamono ci 1859 boobu euh, dafay gudd fi mu jaar ci am njàngam ak yooyu ba 1883 bi nga xam ni euh, ci la yoonu murit taxaw ci Mbàkke Kajoor sëriñ Cheikh Ibra ñëw jaayante ak euh, sëriñ Touba ñu fas yéene nag taxawal yoonu murit jariñ mboolem umma islaam bi seen jariñ dem na sax ba àgg foo xam ni jéggi na dayoo waaye ci menn at mu nga xam ni ci la Cheikh Ibra ñëw ci Serigne ci même même at année bi ci la maam Saliou ñëw ci euh, Serigne ndax wax nañ ne sax ci seenug dikk ci Serigne dañuy nettali ne ku tedd ki Cheikh Bamba maanaam euh, soxla gi mu soxla woon Cheikh Ibra ngir ànd ak moom ci liggéey bi mu doon liggéey mi ngi ko jaare ci maam Saliou mm-hmm. loolu lu leer la ni ak xaj na nag li arab naan maanaam lay sa taarixu màkkaana kenn ku nekk ak ni mu koy indee am na ci ñooñ dañ naan la dafa am ñaxuk salguuf goo xam ni dañoo nekk ci àll bi ñax gi tudd suñu borom alquran mi ngi wax naan wa in min say in ilaa yu xam bi amdihi maanaam amul lenn loo xam lu dul ni mi ngi sabbal suñu borom nee ñu wax nañ ni maam Saali wax ko ne ko ndax wax nañ ni yàpp sa xànc lañ ko daan wax kii ñu koy wax da ndax soxna Seynabu Njaay da daan def la mu am mu dem ñuy jël noonu wala fi baaxoo ah, la ñuy wax bonle ku ko def ñu ñu ñuy soppi seeni tur ngir di gaat nga rek maanaam ñu man fee toog nee ñu bi mu ko bi bi ñax gi tuddee suñu borom sàbbal ko ñu wax ne maam Saliou da ko wax ne ko ah yàpp sa xànc ndax xam nga ñax gi lu muy tudd ci suñu borom ne ko dégge naa ci ne de borom jamono feeñ na te balaa suñu mbir a jag ñu dem ca moom te ñun de suñu aada mooy rakk du jiitu mag kon danga cee dem dinaa la ci fekk bàyyi Naar Fall mii ma la waxit daana wax ne dégg naa ko muy wax ne daanaa toog dégg sëñ Saliou di nettali ak dikkam ci sëriñ Touba waaye nee na bu ko daan wax da daan wax ne bi ma yebalee Cheikh Ibra ba mu dem ci sëñ nee na bi ma ñëwee ci ak njëlbeenam maanaam maam Cheikh Ibrahima Sarr jasaaka yàlla na ko suñu borom dolli leer ak njabootam nee na moom la ko Serigne Touba njëkk a booleel muy jëwrinam loolu lu wér keng la waaw. nee na it maam Saliou wax ne te loola neex ma lool la ca teg nee na moo njëkk a doon jëwrinam dégg naa it nag sëñ Moussa fu muy nettalee bay wax ne maanaam daara yooyu wëroon Touba di ñeenti daara yooyu bay tudd ne ji féete woon ci sow maam Cheikh Ibra moo fa nekkoon ak maam Saliou kon xaj na it bari na ci ay nekk waay yu mu jaar waaye lu wóor la ni Cheikh Ibrahima Sarr jasaaka Serigne Touba moo ko boole woon ak moom waaw mu nekkoon jëwrinam àndoon ak moom ci liggéeyal Serigne Touba. ci ci ci noonu tam relation bi ngay wax am na feeñ na foofu ci digganteem ak maam Cheikh Ibrahima Sarr Jasaaka ndax am na suñu waajur doomi sëñ Saliou Fall ju ñuy wax maam Cheikh Ibrahima Sarr la ko sëñ Saliou tudde ñu ko daan wax Baye Caara mooy waajuru sëñ Saliou ak maam Adama ñoom ñooñu moom maam Cheikh Ibrahima Sarr nag mi ñu ko tuddee woon noonu dem na waaye relation maam Cheikh Ibrahima Sarr ak Serigne Serigne euh, Saliou moom ci ndigalu Serigne Touba sax la jaare moom ndax bi mu ñëwee ci moom jox ko boppam ni nga xam ni la ko ñëpp defee maanaam moom la ko boole loon mu nekk jëwrinam ci noonu tam moom wér na ni moom la tudde doomam jooju waaw noonu tamit la ko defee ci ku mel ni sëñ Adama géey tudde na ko doom mooy sëñ maam Adama Fall moom maam Cheikh maam Cheikh Ibrahima Sarr mii ñoo bokk ñaari waajur mi mi maam Saliou tudde maam Cheikh Ibrahima Sarr Diasaka waaw sëñ Daam Saliou mii fi nekkit mi ngi ko tudde sëñ Daam Abdourahmane Lo moom wax nañ ne digganteem ak sëñ Daam Abdourahmane moom jaxasoo gi moom kéemaane woon na ndax am na ñu ne sax fu ñu mas a tase dañuy songoo ba mel ni sax ñuy bëre xamuñu luñ ci jublu dégg naa suñu waajur sëñ daam Saliou mu ne wax nañ ko ne sax am na boo xam ni sëñ daam Abdourahmane loo aw dàllam sax dafa summiku maam Saliou gaaw dëgg fa tànk ba daan ne ko waaw kay ndax wax nañ ne dañoo wax ne sëñ Touba dafa waxoon sëñ daam Abdourahmane Lo ne fu mu dëggub tànkam ku fa dëgg tàbbi àjjan ba tànkam summi ko maam Saliou gaaw dëgg fa tànkam daan ne ko ndokk ndax yàlla dëgg dëgg dëgg fa tànk ba wax nañ ni am na ku njëkk a feeñ jamono sëñ daam Abdourahman Lo ñëw fi ci njabootuk maam Saliou tudd ko tudde ko boppam ci niñ ko nettalee nee ñu ah, maam Saliou wax ko ne ko mii du mi nga moom ndax mii day dem te mi nga moom am lu mu ko ca wax bu ñëwee nangam ak nangam ginnaaw bi soxna saa si Mbóoj waajur sëñ daam Saliou mii nga xam ne moom it li fi indi góor yàlla yi moo ko indi woon ci Serigne Touba ndax jigéen la waaye moom dafa bokkoon ci gelluwaat yi ca siin bàyyi fa nguur ga ànd ak mbooloo mu bari nee bi muy ñëw fii lim àndal na ma yàlla bale si ñuy waxu moomeel ëpp nañ ñeen fukk fekk Serigne Touba ci njaarim ak yaayam su ma am bale ñu ñëw jébbalu ci Serigne Touba nee na Serigne jël leen boole leen ak soxna Fat Jaxate waajuru Serigne Saliou Mbacke ñu ne fa ab diir Serigne Touba jël maam saa si jox ko Cheikh Ibra Fall soxna mu yor ko ci ndigalu sëriñ Touba yàlla dogal na sax am na ñeenti leer yu fa feeñ ci seen diggante muy soxna Xadi Fall mu mag ñu ko wax ak soxna Xadi Fall mu ndaw ak soxna Aminata Fall ak ku ñuy wax soxna la soxna Rahmatu moom mooy Rama. Mm-hmm. ñu ngi ko denc ci xuru Mbàkke gii. ginnaaw bi nga xamee nag maam Cheikh jiitu ji na fekk Serigne Touba mu duggaat ci loxoy maam Saliou ci la amee sëñ Daam Abdourahmane nga xam ni am na ñeenti magam yoo xam ne ñoo bokk wenn waajur waaye nag Cheikh Ibrahima mooy seen waajur mm-hmm. gannaaw bi soxna saa si mbo jógee foofu nag la ñëwaat ci Serigne Saliou mm-hmm. waaw. ba tey itam demee na comme noonu nga waxee ci digganteem relation ak mag ñi nga xam ni ñoo fi nekkoon nan la demee woon ak sëñ Massamba Mbacke moom dégg naa daaw nañ seetante lu baree bari waaw àgg na ci sax wax nañ maam saay si mii ma lay wax sëñ ma sàmba ñëw na fi mu moom da daan sol lu mel ni manto muuru di buubaka bale rek nee ñu maanaam ba gan gi bi sëñ ma Massamba demee la mu doon jëfandikoo ndox la xaw ma lu mu doon. nee ñu moom la maam Saliou woo ba mu ñëw mu jox ko ko ne ko saa si xanaa xam ne damaa am gan ko toll ni sëñ Massamba ñépp ñëw ñëwoo mu ne ko man defal sab jaam laa naa la bàyyi nga nga nga ci naa bàyyi rek bu nekk sa liggéey bii rek yow nga nekk ci gan mu daal di nag kon ndox mi lii nga xam ne moom la sëñ Massamba doon jëfandikoo de des wi yow mi laa koy jox waaw loolu wax nañu ba fii ñu toog boobu fii yëpp ci kër maam Saliou la woon kër gi kër gu rëy la woon koo xam ne wax nañ ni daanañ ci sóor bis bu set lu mat bari ko su añ bi masaan pare dañuy am na koo xam ne mooy tëgg am ndënd ngir woote mbooloo mi bari giñ bari bañ nañ kenn di wuute maanaam xéewal gi waaw fii ñu toog lépp ci kër gi la am na mag mu ne ma ñetti téeméeri néeg ñi ngi woon ci biir kër gi ci genn kër waaw dem na tam ba ci noonu digganteem sax jéggi woon na sax tarixatul muridiya bi waaye demoon na sax ba àgg ci ñi nga xam ni duñu woon ay murid ndax bu kunta jaxasoo woon na lool ak maam Saliou te la ko gën a waral bokk na ci dañoo wax ni maanaam amoon na benn taalibe buukunta boo xam ni dafa nekkoon ci réew yi namoon nag ab sëriñam gëj koo gis nee ñu maanaam jël euh, addiya joo xam ne urus ca la ak xaalis nee na dem ba ci géej gi mu sànni ko fa ne da koy jox addiya sëriñam boobee di buukunta yàlla dogal nag mool ba ba mu nappee jën wa ko lekk xañ na jaa jën wa wëndeelu na ba accident ru xafoor ñu jaay ko fii am na soxna suñ doon wax euh, suma ma juumu soxna faañ nduur moom soxnas ku ñuy wax maam baay aadama jóob la woon bokkoon ci taalibe maam Saliou yi ba mu nduggee ndugg moomu moo jënd jën wa ne dañoo xëy maam Saliou woolu ko ne ko ndugg moomu damaa bëgg nga jaay ma ko jënd jën wa jox ko mu dem duggiwaat daal di woo benn taalibeem bu ñuy wax euh, benn taalibeem bu ñuy wax Bamba sàmb mu jox ko ko ne ko demal ca Njaasaan soo demee nga yotal ma jën wi Bukunta Njaasaan bi mu ko yotee Bukunta nee na maanaam Bukunta xotti jën wa fekk ca maanaam addiye jooje ca la waxe ne man sëñ Saliou Fall de waxoon nañ ma ne du nit waaye tey jii laa ko gën a gëm ndax lii de samp taalibe moo ko sànni ci géej sàngam jox ma ko addiya jën wi lekk ko mool bi napp ko maanaam njabootam jënd jën wi mu jël ko yónnee ma ko waaye ku ne xam ne tamit bu kunta moomee kon boromu mbir la mag ñi fi nekkoon daal ñoom ñooy ay kéemaan damaa mas a dégg sëñ mu Gueye yaruwaay muy wax ne mag ñi àndoon ak sëñ Touba tooguñu woon loxoy neen nee na ñoom dañoo meloon ni ay gone yu bëgg buur ndawal dugg ci àll bi de waaye nag dañ doon seen xel ci lu mel ni kaña ak ay jinax ak yooyu ci la nekkoon nee ñu jekki-jekki dégg maanaam bal bu tàkk ak dibi gu tàkk ñu daw di ko xeeñ bi ñëwee fekk muy muy rëbb bu xam ne dafa daaneel aw aw ñay toog di appaat mu ñëw mu ne leen kay ñëw leen jàppale ma ci pees meeg toj mi bu ngeen paree ku ne tibb ndawal sa kër mag ñi ñoom tooguñu woon di xool waaye nag ñu ngi woon ci leneen Serigne Touba nag moom bi mu ñëwee moom mooy ki nga xam ne moom moo ub làmb ji kenn xamul moom lu mu doon kii maanaam suñu boroom la goo xam ne dafay ñëw ngir xettali jaam ñi ah ñoom ñi yàlla dimbali woon nag suñu borom niital leen ko ba ñu gis ko ñu dem ànd ak moom liggéey boobee waaw kay moom daal dañuy ñaan saa borom ñu la euh, xootal nga yaatal nga ci diggante relation maam Saliou ak mag ñawoon démb te mu bokkoon ak ñoom Serigne Touba Khadim Rasoul bokkoon ak ñoom magam ju baax ja Cheikh Ibrahima Fall daan leen liggéeyal waaye rafetaloon ko lool ba lii nga leeral lépp euh, juddu ci tey doon loo xam ne. kenn ku nekk teg na ci bëtam waaye yow leeral nga ko ba mu am am solo waaye mu mel ne euh, relation bi ci lañuy ñuy ba léegi ndax wax nañ ni diggante maam Saliou ak ñi nga xamante ne bii ñoo fi nekkoon niti nguur relation boobu euh, ñoom sàmmoon nañ ko waaye doonoon nañ koo xam ne suuraale woon nañ sëriñ bi ci lu baree baree baree bare loolu tamit ana loo ci leeral ci lu gàtt ñu doog a wéyalee. maanaam euh, diggante relation ak tarixatul muridiya seex yi fi newoon sëriñ si waaye demoon na ba jéggi sax yoonu murid ndax sëñ daam Saliou suñu waajur mi jugee na njaareem gii ànd ak délégation boo xam ne dañoo demoon doon euh, seeti këy kër yi kilifay diine yi nee na keroog maa ngi yor gis photo bi ni muy nuyoo El Hadj Abdou Aziz Dabakh nee na bi ñu koy présenté mbooloo bi ba àgg ci ne ko kii sëñ daam Fall la doomi sëñ Saliou Fall sëñ El Hadj Abdou dafa téyewaat loxoom ne ko ah gannaaw yàlla de. sama gudd fan gii yéem ñëpp sa bàyyi sëñ Saliou Fall tàmbalee leeral loola ñi ñu àndaloon ci murid yi am ko yuuxu nee na maanaam ca la dagge wax ci waaw waaye lii moom am na ci ginnaaw bi sax sëñ bi yabal na sëñ Fallu doomam ne ko na nga fa demaat seeti ko nemmiku ko te fexee xam loola waaye nee na ba ma dem ba jag saaw waaye yàlla dogal na jutu koo gis waaye lii moom Alaaji Abdu wax na ko waaw ci ci ci noonu tam li nga wax léegi maanaam euh, da nga ni waa ci nguur yi ak sëriñ bi loolu tamit lu lu lu amoon la ndax mën nañ ci joxe rek benn tegtal ah gouverneur bi nga xam ne moo nekkoon ci ndar tubaab bi dama xamul turam nag teewluwuma ko waaye nee nañ àgg na ci ñëw fii Daaru Xafoor wax maam Saliou ne ko sa njariñ ci réew mi dafa yaatu surtout ñoom li leen gënoon a marqué mooy nit ñi daan teqalikoo ak seen sago te sëñ Saliou di leen delloosiwaat ak seen sago di leen faj delloo leen seen sago Euh, loolu moo leen yéemoon ba tax ñu ñëwoon fi nekko nag gis nañ ni sa njariñ yaatu na te loroo kenn. wan nañ ñu wàccuwaay nga xam ne moo doonoon wàccuwaay ñu tawat. waaw waaw waaw yooyu mu ngi ci biir comme gis ngeen ko mm. nee na ba àgg ci ne ko nag dañ la bëgg a defal lu mel ni benn décor boo xam ni dañoo bëgg ñii dañ ne 3 kilomètres ñii ne 6 mm. waaye lu ci man di xew wax nañ di gouverneur wax na ko ne ko dañoo bëgg ci wàll gu ne bu du 3 kilomètres di 6 kilomètres mm. ñu defal la ko titre foncier nee nañ tam maam Saliou daal di leen cay sant waaye nag ni leen su ma defee loolu dafay mel ni dama fee ñëw dem ba am fi yaatu xatal leen te loolu bugguma ko ci leen waxe daal daal di gàntal loolu ndax moom bi muy soog a ñëw fii wax nañ ne dafa wax ne ab dëkk la fi wut ci la waxe ku mel ni sëñ Ablaye Mbay ci seex yi la woon mu dem jaabel ci la waxe ku mel ni sëñ Mor Soxna Jàllo mu dem Saalum noonu li leen tàqalee kenn ku ne mu ne la bu dee ci wàllu tool demal barab sàngam waaye fii ab dëkk la dama fee dëkk si ñu wax ne nag ci la mujj gouverneur ah, taxut moom mu toqi ci loolu téewut yéeneem ci sëñ Saliou ci la ko indi la ay sàq weñ yoo xam ni da ko wax ne ko kon dinaa la indil sàq yoo xam ni loo mën a bay nu mu toll dana mën a aaru dara du ca mejj indil ko sàq weñ yooyu ñu ñëwoon nekkoon fii ci dëkk bi nga xam ne lu ñu mas mas a bay am na ci sàq moo xam ne maam Seynabou Ndiaye waajuram la ko maam Saliou tudde woon ci lañ daan def dugub yooyu ginnaaw bi sax sàq yi yu ci bari sëñ Fallou moom la ko sëriñ bi yót ca ndindi defe naa am na ñu ne ba fi mu ne nii sax boo demee ndindi ak sëñ Fallou di nga fekk lu ca bokk waaw mu diggam ak sëñ Fallou tam àggoon na ci ritaxoon na lool ab sëriñam la woon waaye xaritam la woon amoon na benn otoom bu ñuy wax Fiat Fall lañ ko daan woowee moom la ko sëriñ Saliou jox jox sëriñ Assane Awa Jaxate mi nekkoon doomam di chauffeur moom la ko jox ak ñam ko booleel defe naa su ma juumut ñu ngi ciy tudd sëñ Modou Anta ñenn ñi ne ak sëñ Xaasim Fall sëñ Xaasim Fall ak sëñ Abdou moom mi nga xam ne doomi Cheikh Ibra la waaye ci baayam sëñ Saliou la ne woon ñu yóbbu ko njaareem jox ko sëñ Fallou addiye jum ko ko jox kon digganteem ak sëñ Fallou tam noonu la noonu la meloon euh, sëñ Fallou it wax nañ ne tudde woon na maam Saliou doom defe naa mooy ki ñuy wax sëñ Saal sëñ Saliou moomu dafa teel a dem waaye ni ñu waxee sax defe naa moo toppoon ci sëñ Alaaji Baara Mbàkke waaw. naa ne boobu leeral it am na solo kon dañ ciy jàngate ne daal maam Saliou yaakaar naa ne ci wet gu nekk taxafe taxawaawoon na fa taxawaayu kilifa ndax euh, ci relation yi nga xamante ni bii wax nga ko ba yëg si ci relation bi nga xamante ni bi am na kook nitu nguur yi yaakaar naa ne loolu sabab na it daaru xafoor gi lenn ci cheikh imam Saliou yi wër ko ngir loolee nga leeral ci lu mu leen waxoon waaye mu mel ni euh, nangoo nañ ci histoire ñu wax ne teen bi nga xamante ni bii moo nekk fii ci daarul xafuur waxoon na ne eh, moom ci boppam am na bis bu mu jàppoon eh, dama xamatut bis ban la xam naa boo ñëwee di nga di nga ko leeral ci ne saa soo xamee ne bis boobu jot na eh, day day lëkkaloo ak ndoxum sam-sam loolu it bëggoon nañ nga leeral ci tuuti ci teen boobu maanaam Serigne Saliou teen bi moo ko fi gaslu woon ci ndigalam lañ ko gase sëñ ba Ñang moo ko doon taxaw ak ku ñuy wax Amar Gueye moom moo daan moo duggoon ci biir bi ñuy gas teen bi moo ko daan gas ak ñeneen nag ci taalibe yi waaye ci biir loolu ci nekk ci ak kéemaan moom lu wér la waa ndax sëriñ Saliou nee ñu waxoon na ni sama dëkk bii da Daaru Xafoor de dox ci suuf si ak naan ci sama teen bii lu mënta saafara amut loolu moom sëriñ Saliou Fall la ko waxoon waxoon na it ne bisub tam maanaam teen bii ci daaru xafoor day lëkkaloo ak ndoxum sam-sam guddik tam xarit ku ko tànq na la wóor ni tànq nga ndoxum sam-sam waaw am na ci sax ak seetlu guñ ci am ne bis boobu ndox mi sax dana am ak soppiku goo xam ne dañuy xam ne lii ak soppiku mi ngi ci loolu moom lu wér la waaw daaru xafoor daal ci gàttal moom dafa bari ay mbir yoo xam ne ndax ci zaahir nii bari na ñoo xam ne ñu ngi koy romb di dem ak a ñëw waaye sax am na ku ne ma dem naa ci sëriñ Abdul Ahad du ma tudd sax turam waaye nit a ma ko wax mag la ne ma dem naa ci sëriñ Abdul Ahad ànd ak jiw ñu wax ba tudd Daaru Xafoor nee na mu jël sama loxoom teg ci sama bopp jël beneen loxoom teg ci loxo bopp ki ma àndaloon ne leen mbaa wàcc ngeen fa mbaa siyaay ngeen barab ne leen Daaru Xafoor de ak boroom Daaru Xafoor fi ñu féete sëriñ tubaa kenn féete wu ko fa loolu moom góor googu wax na ko may dégg nee na waaw nee na wax na ko loolu sëñ Abdou Khadir it ñëw na fii jëm déndey ak ngan waaye keroog ba mu tolloo fii dafee wàcc lañu wax def fi ab siyaare daal di ciy wax ay wax yoo xam ne mujj na ngan nga ñëpp dañoo buur jëm si waat daaru xafoor gi dafa mujj dafa mel ne ngan nga fii la waaw doomi Serigne Touba itam noonu rek lañ fi daan bàggan noonu ko Baye Birane Baye daan waxee géewlu maam Saayu la boo xam ni maanaam ku fekkee lu bari la da daan wax naa ku fi ñëwut bëccëg it day raam nga ñëw fi guddi mm-hmm. waaye Serigne moom dafa am loo xam ne ci baaxuk Serigne moo ko tegoon ci ay loxoom daan ko ko lijjantiloo ndax dem na ba fi mu ne jumaa jii bi ñu koy liggéey boo gisee màggalu daaru gi gii nisfu saxbaan sabab bi mi ngi jugee ci dañoo wax ne sëriñ tubaa moo ko batale woon ne ko bu ñu waree tàmbali liggéeyu jumaay Touba ji ñeenti xibla yi fu ci ne nag ma fa defal nangam wax nañ ni maam Saliou bañ koy tàmbali fu ci ne wàcce na fa lu ab kaamil ray fa aw nag am yum fa def loolu lu wér kéng la yemul nag ca di ko defee noonu waaye weer wu teru wu ne mu séentu weer buñ ko gisee ñu fanaanee tudd yàlla def ay bernde mu di ko màggali ndigalu sëñ Tuubaa loolu ñu di ko def di ko def te fekk la jiitu loolu sax dañoo wax ne ba ñuy liggéey jumaa ji sëñ Moodu Mustafaa Mbàkke dafay yable ci maam Cheikh Ibra ñu ya mu am mu boole ndaw ña ñu yabalaat leen ci sëñ ñu laaj ko xeer yi ñu war a liggéey jumaa ji sëñ Asan Awa Jaxate moo doon dawal oto maam Saaliw nee na keroog ñu dem ba ndokk ñi mu àndaloon am ci ñoom ne néeg leen ma noonu demal boppam booti loxom ba sori ne fab diir daal di tàllal loxo ñu ñëw wuy ko mu ne nañ nañ ma indil ngajju ngas ka mu ne gasal fii ñu gas-gas bam mu ne kuk kukk mu demaat fu ko dànd def ko nee ñu xeer yooyu mu ne nee ñu sax dafa wax ni la desoon ca xeer yañ doon tabaxee kaabatul mubaarak de des ba mën lañ ko dénk fii laa ko dencoon daan ne li fi nekk de mën naa tabax jumaa ji soxna mayum sëñ Tuubaa tam wax na ne wax na ko suñu waajur sëñ daam mu dem ci moom mu ne ko sa baay de liggéeyu jumaay Tuubaa mbalka moomu ci buntu kër sëñ Fallou moom la ko sëñ moo Modou Moussa fete doon ñoo ko daan root waaye dem na ba nit ñi mu wóor leen ne lii li koy duy du ay nit rek ndax gaayu nu duy ga moom yéemoon na leen lool waaw léeg nag nga dégg fu ne ñu askanale fa mbirum ndokk moomu waaye lii moom ñi ko sëñ Assane Awa Jaxate nettali ñi ngi ci dëkk bii te moo doon dawal keroog oto maam Saliou ba ñu dem ba ndokk kon loolu defe naa lenn lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy sikk sàkk nekku ci waaw teen bi moom loolu nga moo taxoon ngay laaj sax xaj na ñoo ci taañaañang rek ba àgg ci loolu lépp waaye li doon wax ji moom mooy loolu sam-sam boobu moom wax nañ ni ma man loolu laaj naa ko gëstuwaat ko ku ne ma damaa toog sëñ Abdou Ndakaaru moo ko ko waxal boppam ne ko maam Saliou moo wax ne guddik tamxarit day xëttaloo ak ndoxum sam-sam te it nit ñi def nañ ci takk ne bis boobu moom ndox mi danañ ci sentir leneen loo xam ni ak soppiku la gu bokkut ak niñ ko daan gis. li daal yëpp yëpp am na am am solo ba nga xam ni kenn ku nekk. mën ngaa gis ne sunu jàmbaar ju baax jooju daal yàlla nañu ko yàlla fayal te taaf ñu ci barkeem te yàggal fi xalifaam bu baax bii waaye nag eh, sëriñ bi dañuy ñëw ci bëyti ndax xam nga ne eh, wax nañ ne bëyti mooy fi nga xamante ne bii fi la sunu jàmbaar ju tedd jooju wàcceeb liggéey waaye loolo kañ la ak ndaka la woon eh, di nga ci indi ab leeral su ko defee nag ñu doog a mën a tëj waxtaan wi. loolu lu wér la bayt moom barab la boo xam ne ni nga ko waxee léegi sax xam nga dafa bari woon sax ay jeexit yoo xam ne yu sëriñ bi la yoo xam ne foofu la yëpp nekkoon waaye xaj na lenn li ginnaaw bi am na ci yeneen barab yoo xam ni fa la waaye sëriñ Saliou ndax dañoo wax ni xam nga siyaare maanaam waaju baax ci fa mu tëdd baax na lool. waaye nag siyaare fa mu summi ko ab liggéey fekki boromam loolu lu am solo la te kii ñuy waxtaane nag xam nga alxuraan dani inda zikri saalihiina tansilu rahma fu ñuy waxtaane gaa yu baax yi yërmande yàlla day wàcc waaye daanaka dañ naan wax inda sikri sëriñ Saliou Fall inda sikri saalihiina lañ wax gaa yu baax yi kii ñuy wax nag yàlla dogalit muy am sëri muy am saalih waaw te te te wi rek maanaam ku ñu tànn moo koy am ndax wax nañ ne yonente bi alayhi salaam mas na woote di defarlu ab gàtt ku ñu woo ku mu woo boo ñëwee mu ne la noo tudd nga wax sa tur mu ne la demal ba ñu àgg ci juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent ka ko mottali téeméer ba mu ñëwee mu ne ko noo tudd mu ne ko saadiw mu ne ko demal defar ko yow lañ tànn waaw te iza arada allahu shay'an ayadaluhu al asbab am na loo xam ne su ko borom bu ko nammee faaw mu dëgërale ko ay sabab waaw su ko defee nag foofu nga xam ne fi la wàccee ci wàccuk sëriñ bi wax nañ ni am na doomam ju ñuy wax suñu Moodu Fatma Fall moom euh, sëriñ Saliou du waajuru boppam waaye baayama ndax mook baayam ay doomi baay lañ ndax maam Cheikh Ibra moom sëñ saa yu la am ci ku mu bokkal ñaari waajur am nañ nag seenub jigéen bu ñuy wax soxna Astou Diop nga xam ni moom doomi sëñ Abdou Khadir jóob la sëñ Daaru Assane Ndiaye lañ ko dénkoon mooy waajur sëñ Ousmane njaay ak sëñ Mor Asta am na am na ak moom daal ak njaboot waaw moom sëñ Modou ma Fall moomu nag nangoo naa ci sëriñ Cheikh Mbay Yaaram mu wax ci ay wax yu kéemaane yoo xam ne ndax sëñ saa nee na da ko waxoon ne ko maanaam du li ma la jur moo tax ma batale la lii waaye saa boo diggee ñu ne dama wéradi jagadi na nga ñëw soo ñëwee fekk ma ma tëdde wetuk nangam na nga xam ne feebar boobu ci lay dem soo ma fekkut ma tëdd noonu nag man ngaa dellu te xam ne du du déw ma nee ba benn bis mu dégg wérédik sëñ Saliou nee na ci la ñëwee waxoon na ko nag booy ñëwit bu boobaa na nga indaale siif foroote bu ñuy wax siif nee na maanaam mu dégg wérédeem ñëw fekkut baayam sëñ Saliou tëdd noonee nee na mu ne kooku Modou Fatma ah jotagut de nee na mu dellu beneen yoon ba mu déggee wéradi ga nee ñu ba mu ñëwee fekk mu baayam tëdd na ko waxee woon nee na fekk waxoon na ko nag su loolu amee na nga fa toog fekke lay xew ña ko war a fekkee nga nga yor teqantal ba nee na keroog ba mu ñëwee fekk mu demee noonu mu toog xam ni kon bàyyam moom lépp lu mu ko mas a wax teg na ci bët ndax ñoom dañoo wóolu woon seen seen seen kilifa yooyu lépp lu ñu leen wax te gisaguñ ko sax daanaka moom la ñuy gën a gëm ca lañ leen wax bañ gis ko ba noppi fa la toog ba xew-xew bi am ah, ñu ñu ñu bokk ci ña ko taxaw ñu waajal ko maam Saliou it bi mu fi bàyyi ko dugaluñ ko sax ci oto dañu ko yanoo fii ci Daaru ña ko yanu ñu ngi tolloon ci fukki nit ak juróom benn fi lañ ko jële yóbbu ko la ko ndaam ci sëñ daam abdourahman loolot ni ñu waxe moom moo ko santaane woon xam naa digganteem ak sëñ daam abdourahman moom xóotoon na lool sëñ daam ñaanal ko ñu jëlewaat ko fa soog koy yóbbu Tuuba bi ñu demee wax nañ ni ki njëkk a taxaw sax di ko di ko di ko taxawu bi mu taxawee maanaam daanaka mënatu xamatut ci boppam dara waaw nee ginnaaw bi la ko sëriñ yaaram mbay moo ko jullee ñu waajal ko denc ko noonu ma la ko waxoon ci njëlbeen loolu feeñ na fa ci denc bi maanaam xaalis boobu nga xam ne da doon génn ci barab bi bi ñu demee ba kër gi mat ba war a toll ni mu war a toll nee ñu bi ñu njëkkee tibb sax xaalis génn dañ ni a ah, ndax dafa am ku fi xaalisam tuuru kenn ku ne làmb daal ne ñu ne ah waaye bi ñu ko xoolee ñu ne lii day ëpp na xaalisu poos waaw ñu génn peel boobu ñu di ko def peel bu ñu dóor rek nee na maanaam mu mu xaalis bi génn ba mujj ñu ne nag nee ñu sëñ yaaram mbay sax moo ne lii buñ ko toppee danañ fi gis leneen nee nañu mujj ko denc noonu xaalis boobee jënd nañ ci laaj ko lañ def ko ca ñoom ñoo ñooñee Baye Naar Fall moom mu nga xam ne fekke woon na ko ci fukk ak juróom-benn yi la bi ma ko laajee dane ma booba lekk yombut caaf lañ ñu jëndal ñu reere ko ci xaalis boobu lañ ko jënde sëñ Abdou Sakour mii toog di sama rek am na ku ñu wax Baye Modou mbay dagget lañ ko daan wax nekk fii ci njaareem mas ko wax ne ko am na lu ma ca denc loo xam ne boo ñëwee ma wan la ko xam na ci mbiri gone jotu caa dem ba yàlla dogal góor googu nopp noppalu waaye wax na ko ne ko xaalis ba génn génnoon sa barabu maam de am na lu ma ci yor loo xam ne soo ñëwoon ma wan la ko ma wan la ci nga nga nga nga barkeelu ci xam naa booba bu doon jamono yi moom ba fam ko ko waxee rek ci lay daal di fex wuti ko waaye booba jot a dem ba waaw loolu moom am na ci ak ak ak ak wàccam noonu daal xam naa ci gàttal mooy li nga xam ni moom lañ ci mën a tënk daal am na nag yu ci xew yoo xam ni darut neex a di wax nii waaw tey suñu xam-xam ñun gàtt ci sëñ yu lool ndax bokk ci ñu mujj a te gën a néewu xam-xam dafa fekk ne rek bi ngeen ñëwee ah comme ñi ngi fi te xas ngeen seqi seen i jéego ba ñëw du ñàkk ñu jéem cee feeñal yéene waaye lii am na ñoo xam ne ñooy ñu ko waroon a def ñoo xam ne ñoo ko xereñe te xam ku xamin wu wér waaye xaj na du ñàkk beneen bis ah, ëtt bi mën naa amaat ngeen tombeek ñooñee nga xam ne la ngeen ci bëgg lépp daañu ko mën a leeral Euh, dinaa tam euh, leeral tuuti ci ndax sëñ Saliou Mbacke man day sama sëriñ ma yaroo ci ay daaraam kon danaa sawar lool tam leeral ci digganteem ak ku tedd kii waaw di sëriñ Saliou Fall wax nañ ni euh, da ñëw fii ci moom di ko seet si waaw ndax wax nañ ni am na bis boo xam ne kere bi muy ñëw fas wi nga xam ne moom la sëñ Saliou Mbacke waroon sëriñ Saliou nee na mi ngi sol booba sëñ Saliou Fall a ngi sol turke dara bu weex moo sukk ci suuf taawul ko digal yi nga xam ne moo moo ci la war a dëgg tànkam ci fas yi wàcc ba muy dem demit noonu la ko sëñ Saliou Fall defaate keroog benn taalibeem bu ñuy wax Idda Mbeng moom la Serigne Saliou wax ne ku may jox lu ma jox sama sang bii nga xam ni dafa ñëw te sëriñ Touba sédde ma ko nee na keroog àgg na ci taalibeem boobu fekk saxaaru boos gi nga xam ne moo fi daan jaar saa bu ma saan ñëw addiya yi dañuy ñëw dafa yegg seegut te sëriñ bii dem nee na mu ne nag comme saxaar gi ñëwagut ba addiya yi ñëw. damaa bëgg ku ma jox lu ma ko jox hmm. Idda Mbeng moom ma jox ko aw fas waaye moom dey wax nañ ni mujj na li mu yore ci ay fasi naaru góor moom ci ci barkeelu jox googee ñu jox doomi sëñ Bàmba ju tedd jooju fasam woowee loolu yooyu yëpp daal ay mbir la yoo xam ni e, am na daal ci diggante sëriñ bi ak njabootu sëñ Tuubaa nga xam ne ñoo nekkoon ay sangam di ay di léppam. kon xam naa waxtaan wi daal doon na loo xam ne bu nu ko toppee danañ fi xaw a mën a fanaan. ci sunu jàmbaar ju tedd jooju ah, te nu ngi nuy xamal sëñ góor mi ngi nuy xamal ne waxtu wi mi ngi jot waaye daal kon ñu fàttali ne mbokki téléspectateurs yi ñu doon seetaan eh, seen émission bii di gëstu mag ñu baax ñi tey ñu ngi ko defoon ci sunu jàmbaar ju tedd jooju di maam Saliou Fall waaye ñëwoon ci dëkkam bu tedd bii di Daarul Xafoor fekk fi nag xalifaam bi sëriñ Daam saaliw eh, nu koy ñaanal saa borom yàlla yàggal ko fi lool te mu wér waaye àndoon ak ñenn ci njaboot gi e, sëñ bi kon nu jox la nga tàggatoo ak mbokk yi ñu doog a ñaan. xanaa di sant rek ak gërëm di yeesal tam suñu bi rek e, ñi ngi sant bu baax a baax a baax di siyaaram mboolem ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci e, seen site internet bi télévision bi nga xam ne mooy Mafatihoul Bichri TV di siyaar nag suñ bokki bopp yi nga xam ni suñuy kilifa. jël euh, Serigne Cheikh Jëmb faal mi nga xam ni moo toogee jotaayub suñu maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi koy siyaar te ñaan suñu borom guddalu fanam may ko wérug yaram naka noonu tam boolem buntu kër yi doomi Cheikh Ibrahima Fall yëpp ñoo ngi leen di siyaare ndax ñun ak ñoom benn rek lañu duñu ñaar sëñ Saliou ni ñu koy waxee rek ak Cheikh Ibrahima moom biirub loxo ak bitib loxo la euh, dugg nag tam ci biir kër sëñ Saliou Fall di jël siyaar bi tàmbalee ko ci njabootu sëñ Modou Saliou Fall mi nga xam ne moo njëkk di doomi Serigne Saliou Fall njëkk koo wutu jaar sëñ Modou Anta Fall njabootu sëñ Modou Maam njabootu sëñ Assane Awa Jaxate njabootu sëñ Adama sëñ Cheikh caara ñi ngi siyaare ñëpp bàyyiwuñu kenn waa ko sëñ Abdourahim ñoom sëñ Maam Cheikh di siyaare nag suñu waajur yi fi nekkit muy soxna jee soxna jëgg euh, di siyaar tam seen njaboot yi nga xam ne ñoom ñi ngi fi ak ñii nga xam ne ñoom lañ bokkaloon jotaay bi muy suñu sëriñ sëñ Saliou mi nekk suñu wet ak sëñ Abdou Sakor Cheikh Moustapha sëñ ndonga ñoo ngi leen di siyaar yéen ñëpp sëñ Murtala daal am nañu mbégte yal yàlla taxawu leen yal yàlla dëgëral leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ bi yow itam noo ngi lay sant bu baax te di la gërëm ci euh, émission bu am solo bii nga xam ne def nga ko ak ñun ci sa maam ju baax ja te lépp li nga ci indi cib leeral mu doon loo xam ne kenn ku nekk boo ko déggee ci sab nopp mu doon lu la mën a jariñ àddina waaye doon loo xam ne boo ko toppee àllaaxira jënu jëm mën na la faa ramm waaye mën na la fa texel kon yow itam noo ngi lay sant di la gërëm waaye nag di sant bu baax sa waajur bu baax wi sa kilifa eh, sëriñ daam saaliw mi nga xam ne moo toogee jotaayu maam ju baax ja wala boog baayam bu baax ba te mat ko sëkk saa borom yàlla yàggal ko fi te wéral ko di sant bu baax it ni nga ko waxe eh, ñi nga xamante ne bi ñoo jàpp ci liggéey bi yëpp ba mu yemb di ko tàmbalee ci sëriñ njaga Euh, Seck di ko ñaanal gudd fan ak wér waaye sëriñ Mamoun noonu nga ko waxee moom mi nga xam ne moo waral lépp ndaka noonu nag di siyaare baax sëñ góor mi ñu ci àndaloon ci wàllu caméra bi ba nga xam ne image yi euh, dinañ ngeen ko mën a gis ni ngeen ko bëggee waaye sëriñ Baara Seen soxna Jamilatu ñoom tamit euh, ñoo ngi leen di siyaare bu baax ak soxna Aïcha ak ñoom ñëpp bàyyiwun kenn waaye nag di siyaare bu baax sunu kóllëre koo xamante ne bii Euh, euh, kóllëre gi nu boole mooy sëriñ Touba nu ngi koy sàmb bu baax te di ko ñaanal saa boroom defal ko jàmm muy sëriñ Babacar Chaliah euh, di sëriñ Babacar moomu nga xamante ne bi soppab sëriñ Saliou moo taxoon ñu naan ko sëriñ Babacar Saliou kon mu wan mu mel ne tey ci ëttam la ñu ñëwoon ndax sëriñ Chaliah Mbacké mooy sëriñ Saliou Fall kon moom itam noo ngi koy siyaare te di ko wax ne ko émission bi tey moom émission am la noo koy siyaare bu baax mook mbokk yi nga xamante ne bi nekk naa ñoom foofu ci États-Unis d'Amérique di liggéeyal euh, Serigne Touba foofa noo ngi leen di siyaare bu baax te di leen ñaanal jàmm xam naa mbokk yi di leen dox dig daje ci beneen émission gëstub mag ñu baax ñi ñu ànd kook meneen mag mu baax waxtaanee njariñ la nga xam ne mën nañoo jariñ àddina ak àllaaxira kon sëriñ bi nga defal ñu ñaan. fa la ilaha allah la ilaha illa allah fa la ilaha illa allah barkeb Serigne borom Daaru Xafoor ñu ngi sant bu baax sëñ Aliou Fall mi ci jaar-jaaru ëttu mag ñi def ci télévision ma faati Bichri TV sant bu baax a baax a baax lépp jaar na yoon di leen tamit jot ay kàddu yoo xamante ni ñun seeti Serigne Saliou Fall yi comme ñun fekkuñu fi suñu maam loo xam ne dañu koo xalaatutoon di ko liggéeyal ci dëkk bii di Daaru Xafoor ginnaaw bu ñu takkoon ndax suñ ko fekkoon dañuy takk suñuy der di ko liggéeyal ndax liggéeyal waaju baax moom lu am solo la ci lañ laajee ndigal suñu waajur yi fi ne di xalifa maam Saliou Fall ci ñu sumbal ko fi ab liggéey muy am mbaar mu mag moo xam ne vingt cinq vingt cinq mètres carré la seeti sëriñ Salif Faye tàmbale ko ci njiitu sëñ ab Lahad Fall ak sëñ Aliou mi ak sëñ Bada Fall mu bay Abdou sëñ Galas ak mbooleem ñëpp rek seeti sëñ Salif ak taalibe yi ku bëgg lu baax rek mbaar mi nag dem nañu ba mu raase ba xam ne kuule moo ci des ñu fas yéene woon tey di ci képp koo xamante ni jama bëgg nga jamante woon ngaa sëñ Salif di nga ko liggéeyal. nga ñëw jàppale ñu ci mbaar mi ba balaa màggal Darou Khafor Gueye ñëw ñu mën koo kuule ba man fee def jàng yi ak wàcce alxuraan yi ak lépp lu ñu def Darou Khafor ñu mën ko dajale ci mbaar moomu ñu ngi koy yëgal ñëpp bépp jullit bépp taalibeb Serigne Touba bépp taalibeb Maam Cheikh ba Fall bépp taalibeb Serigne Saliou Fall bitim réew fépp Amérique France itali Allemagne Brésil Hollande Arabie Saoudite fépp mboolem fu taalibeb Serigne Touba ne wala ku bëgg lu baax nekk rek ñu ngi lay loolu nuñ ndax sëñ Saliou Fall moo ñu ñor moom lañ koy liggéeyal lii tamit dañ ko doon liggéey ci suñu poos ak suñu jam ak li ñuy bay di ko dunde ci lañ ko doon def waaye nag comme wax jot na tey mbir boo koy liggéey danga koy yaatal ndax ñëpp mën cee jariñ moo tax ñu ñu ñu ñu ko yëgle nii waaw képp koo xamante ne bëgg nga ci am lu leer nga woote ci numéro yii 77 568 99 76 wala 77 557 62 43. wala 77 614 08 09 08 05 05 08 di sant ñëpp di gërëm ñëpp numéro yi 77 568 99 76 wala 77 557 62 43 wala 77 614 05 08 boo ci wootee di nga xam ci liggéey bi li nga xamante ni dañ la ko leeral ba mu leer nañ. di sant ñëpp di gërëm ñëpp di di gërëm ñëpp di sant ñëpp mbooleem ku yaakaar Serigne Touba wala nga yaakaar Cheikh Ibra Fall wala nga yaakaar Maam Saliou ñu ngi lay sant di la def nga am xéewal yu Serigne Touba yu baawan fépp ci barke si Ahmadou Bamba Xaadimu di ñaanal suñu waajur yi Serigne Dame Saliou Fall mu yàgg fi te bu fi yàggee te wér lépp dina baax yal na fi yàgg lool te wér yal na fi yàgg lool te wér ci barke si Ahmadou Bamba ak ay rakkam ak ay magam barke Serigne Saliou